لله رب العالمين نعمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين خائر القر المحجلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم mbokki internet Farokh TV mu leen di nayu ci nuyu bëggan tedda comme ni leen daan nuyoo ci koor gi yëpp di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla nangu ñu suñu koor te di leen baal àq nag yéen ñëpp di leen baal àq di ñaan yàlla yal yàlla boole baal di ñaan subhaanahu wa taala gi yal na ko yàlla nangu lépp luñ ci jëf ci saalix ahmal ci jëf yu baax yan ñu ko yàlla borom bi subhaanahu wa taala nangul fa tabaarakallaahu di ñëw ak ci lenn rek ci njëriñ li nga xam ne doomu aadama bi bu wooree war na ko caa jële ndax nit ku nekkat lu muy yëngatu surtout rawadina fi jaane bi rab bi ci wetu borom bi subhaanahu wa taala mu ne la kaay jaamu na lu wér ne yàlla moom wa maa xalaqtul jinne wal insa illaa liya'buduun maa uridu min min rizqin wa maa uridu an yutimoon inna allahu wa razaqu sul qawatil matin kon yàlla jaamu koy jaamu moom amalut ko njëriñ ñàkk koy jaamu itam wàññiwul ko dara waaye ñun lay amal njëriñ waaye ñàkk jaamu gi ñun lay wàññi kon nit ku ne la mooy yëngatu rawatina koor am na ay njëriñ yoo xam ne da ko ci jëlee ba tax na ñu yaakaar ne yow de sa koor nangu na kon wa bi fawaa'idi zahri ramadan allati taatal muslim mooy li nga xam ne jullit bi dana ko gàddu ci weeru koor yi li nga xam ne dana ko màng ci ay yiwam bokk na ci yii nga xam ne moom lañ bëgg a wax si ba ci njëkk mooy alsawmu yusaaidu almuslim ala tahqiqi taqwa allahi taala bi imtisaali awamirihi wa ijtinaabi nawahi nee koor bokk na ci li nga xam ne dina dimbale doomu aadama bi mu am teraanga boobu yàlla wax ne inna akramakum indallahi atqaakum ki gën tedd ci yéen fa yàlla mooy ki gën ragal yàlla kon koor dana bokk ci li dimbale ndax yàlla moo ne laallakum taqoon amaat na ngeen ragal yàlla te yàlla xasa boo dégg ci moom rek wala laal la loola lu sotti la ba pare kon taqwa bi nga xam ne dana la dimbale pour nga am ko ci koor gi fexe nag continuer ko ba koor gi del siaat garaat boobu kenn du ko tekki loola mooy ndamal jullit moo tax kon koor dana dimbale jullit bi ci dëggug taqwa gi nga xam ne te mooy euh, làmboo lépp loo xam ne mooy ndigalal yàlla waaye sànni ci àll ba lépp loo xam ne mooy tere borom bi subhaanahu wa taala kon bokk na ci itam ñaareel bi mooy asawmu yumarrinul muslim yumarrinul muslim ala tahqiq al ixlaas wa bu'd an riya jullit daal koor dana ko dimbale bokk na ci njëriñal koor mooy dana dimbale jullit bi euh, ba mën a dëgëral boppam ci mën góor góorgóorlu ba lépp loo xam ne mooy sellal dana ko def ndax yàlla ne ne wa ma umiru illa li yabudullah muxlisin moo tax si laa yaman daw day wax day wax sëkki siyaami wa hadi wa tilawatana muxlisatan lak ya sahidu yàllaaw boo demee ci sahidu mu koy wax kon lii tax nga mën a sellal li la ciy gën a dimbale mooy li xam ne moo tax sa jëmma jullit bi mën a tàmm li nga xam ne mooy sellal ak sori lépp loo xam ne mooy Eh, ngistal bokk na koor njëriñam mooy dana la dimbale ba nga sori lépp loo xam ne mooy ngistal waaye nga jege lépp loo xam ne mooy li nga xam ne mooy sellal nga xam ne lépp lu jaamu yàlla rek danga nga koy def xaalisati lillah ndax koor moom amul ngistal da ngay woor rek wala nga ñàkk woor fa tabarakallah kon nekk na loo xam ne loo am solo la ba ko ñetteel mooy assawmu yaalamu muslim alxufaasu ala alal waqti wa ihtiyaadi nizaami wa daqati sawaid mawaaid kon koor it bokk na ci li mooy jëriñ mooy dana dimbale nit ki mu xam ak mu wattu it li nga xam ne mooy ay waxtum waaye itam sori ci lépp loo xam ne mooy mooy li nga xam ne mooy rànd yi ak ndigal yi ndax koor bu jotee dangay gis ñi nga xam ne daanuñu julli sax dañuy ñëw ci jàkk yi di julli di déglu nodd yi di déglu salaatu yi nga xam ne heure julli yëpp ñëpp dañ koy xam da ko compter da ko xam di takk heure julli yëpp kon koor bokk na ci li nga xam ne dana dimbale nit ki mu xam li nga xam ne moom la wëttu ci ay waxtum ak li nga xam ne moom la walla wëttu ci ay rànd yom yëpp koor da koy jàngale kon nekk loo xam ne njëriñ bu am solo la ba ko ñeenteel mooy asawmu yazkurul muslim bil gaaya min xalqil insaan nee na itam koor dana fàttali jullit li nga xam ne moom la yàlla teg ci moom ay nattu ay ñàkk waaye itam dana fàttali jullit ci jikko bi nga xam ne mooy jikko bu rafet ak dana fàttali jur itam ci li nga xam ne mooy jaamu borom bi subhaanahu wa kon njëriñ yooyu bokk na ci li nga xam ne lu am solo la juróom-mel bi mooy asawmu yudabbirul muslim ala taqyirul aadaati wa sulukaati sayyi'a koor dana góor dana dimbale jullit bi mu mu mu mu tàmmal boppam tàggat boppam ci li nga xam ne mooy soppi ay aadaat yoo xam ne miinoon nga ko ci sa yaram ndax ku ci ne xam ne ne lekk ak naan moom bokk na ci suñu aada yi nga xam ne moom lañ miin tàmm ko waaye yàlla ne la na nga ko ba na ko ba ci bëccëgu ramadaan bu lekk bu naan bul bànneexu kon aadaat yooyu boo ko tàmmee da ko bàyyi war ngaa mën a bàyyi li nga xam ne mooy man hiyaat yi nga xam ne yàlla tere na la ko kon bu koor ga passé man hiyaat yi du la jaaxal ndax war nga ko mën a bàyyi kon bokk na ci njëriñ yi nga xam ne moo lay dimbali ci koor gi in uridu ila islah mastatatu ma tawfiq illa billahi tawakkaltu wa alayhi unib wassalaamu aleykum